saraax la ñuy def ci xew-xewu làmb tey fekk fa combat royal ba diggante Modou Lo ak Ama Baldé bu ñuy génnee dalal xelu amateur yi ne bile combat dana am dana leer nañ ca suba ga ñeneen génn lëndëmal xelu amateur yi tey la sunu làmb xëyee mooy kàddu ya tukkee ca raay ba may coordonnateuru Luc Nicolaï Enco raay ba en tant que coordonnateuru Luc Nicolaï lan nga xam ci combat Modou Lo Ama mu ne combat bi mënul am tànk Luc Nicolaï ngi ci kaso bi a sottil même doom ja Wili Nicolaï mënu ca dara moom Wili sax xam na ne dara moo tax liy objectif am yépp mooy papaam génn prison moom raay ba ay kàddu yu leer leer la fësal ci sunu làmb lam fa xamle mooy diggante Modou Lo ak Ama Baldé demande sociale la mbooleem ku nekk ci làmb bëgg làmb di seetaan làmb bëgg nga bile combat ñaareel ba mooy bépp promoteur bu taxawal bile combat organiser ko mooy sa mébét amul benn promoteur buy joxe sa xaalis te jubluwoo ci taxawal combat amul kenn ku ciy taxawal combat yi te jubluwoo ca mbëree bëre joxe xaalisam kenn gënu ko bëgg combat bi am te liy objectif Luc ñu jàpp waaye bile combat kenn mënu ko ci ginnaaw Luc Nicolaï xam ngeen ne combat bi dafa laaj ay aspect yu bari te aspect yooyu aspect financier beeg aspect technique bi mooy lépp te loolee kenn waaye lu amateur bëgg-bëgg bile combat Lac de moo leen ko gën a soxla ay ata ngi nii Lac de Guiers 2 di soñu Gris ngir bëreeg moom dem na ba koy woowee ragal bi tàppet bi góoru yaay may ma ñeex moom la jatoo de l'écurie wàllu communication lay def arsenalu verbe la yor saa yu xëyee timbax ko Gris moom la dëgër de mësula découragé ci Gris Bordeaux saa yu xëyee avance u Gris Bordeaux lay wër ba ngoon jot mu dem entraînement bu fa jógee ñëw di wëraat avance ba ba guddi jot mu dem tëri keneen kay wër avance u Modou Anta mooy Coen bu Lansar moom doomu Bargny bi la mu xamle mooy je combat important avant la fin de la saison je ne pas un seul lutteur waaye Modou Anta moom soxla naa ko franchement moom may tere nelaw Modou Anta laa laa bi fal président fal coach fal manager moom Papa Sow mag ja Ousa Sow lay tàllal loxo ngir mu ñëw assister ko te moom Papa Sow teg na ko fu leer nañ Ousa Sow viendra m'assister face à Siteu Ousa dana ñëw dana ma taxaw dana ma jàppalu ci sama diggante ak Siteu ñu bëri nag dañoo yaakaar ne sama objectif man Papa Sow mooy ma daan ngir honorer sama équipe bu bees bi déedéet Papa waxut loolu xalaatut loolu man Papa Sow plan de carrière laay gérer combat bi dafa am importance ci a daan ngir dellu fa ma nekkoon wala sax ma romb Konia ak Weuz Diambar jam taxawal na ko bu dee promoteur bi di Adama Sané lim na ñetti combat yu mu taxawal bébé diwaan ak dab daan sotti na Jackson 2 ak Raskas noppi na ñetteel ba mu ca toftal mooy diggante Tigre Junior ak Boy Jaxaw moom Adama Sané ñaari combat espoir la taxawal ngir renforcer combat bu mag boobu di diggante Tigre Junior ak Boy Jaxaw bi la bés nag ñu ngi ko jàpp le avril bu ñu jàllee ca combat ba jàlloon keroog samedi ca xew Fils ca tonn ne waaw man de gis naa erreur ci arbitre ba bi caatu ngewel génnee saaku yi dafa waroon a arrêté combat ba waaye deful li ba fils de Zallo daan caatu ngewel muy doog a arrêté ba woowaat leen wax ba ko Baytiir Ndoy président wu écurie Yoff déggee da koo naqarlu moom Baytiir la mu xamle mooy Max Mbergane warta influencé CNG moom da caa war a ne patt yoonam nekku ca moom Max Mbergane bu dee technicien la am na commentaire yoo xam ne waru ko bu ñu jàllee ca lit sans frappe galaa ba manager am ba Bourkhane Wade Max Mbergane mu ngay dox médiation ba Max Mbergane a ngay négocier ngir lépp delluwaat ca yoon bu dee Tapha Mbeur moom won na ginnaaw Grand Médine mbooloo moom la mu xamle keroog ci assemblée générale Papa ba mooy day dem rok énergie fekki Modou Lo collectif des promoteurs de lutte authentique ñoom fal nañu Mamadou Dieye seen président bile collectif finalement Mamadou Dieye seen mooy président ba jërë ngeen jëf mbokk yi li moo